Mamadou Sy Albert maa ngi lay nuyu. maa ngi lay. ngay analyste politique sa xel màcc ci lépp lu jëm ci wàllum politique ñu gis nag ne list gouvernement gu yees gi daanaka euh, mujj naa génn ginnaaw ñetti fan euh, gi ñu tabbee kii di Elimaanu jëwriñi Ousmane sunko euh, mu dévoilé nag li nga xam te ne mooy composition gouvernement bi nan nga jàngatee formation gouvernement gu yees gi. loolu xëy na ñoom foofu lañ toll tey mais quand même base bu baax la base bu baax la bu bëggee liggéey gouvernement boobu dina mën a dina mën liggéey mhm. alors lu toll nag euh, ci ñaar fukki jëwriñ ak juróom ak euh, juróomi secrétaire d'État euh, yoo xamante ne daanaka ñoom la ñu fësal ci gouvernement gu yees gi nga foog ni nombre bi baax na waaw baax na mooy bu xoolee daan am nga am quarante huit bii nga am euh, ñaar fukk ak juróom loolu baax na nga wàññi nga bi budget gouvernement dina wàññeeku lool waaye loolu dina wàññi ci euh, ma yaakaar amul euh, beneen organisation organisation bi nag dafa laaj ñu toog gëstu xool benn genre de gouvernement la ñu war a am par exemple boo xoolee gouvernement vingt cinq yi mënoon nañu wàññi ba quinze ba mënoon nañu tourner mais à condition que ñu def euh, regroupement des ministères am na ay ministères yi nga xam ne boo leen boole woon rek nga am euh, réflexion pour xool euh, ban secteur moo war a ànd ak benn benn ban secteur mën nañu am vingt vingt mais nga am direction yu yu baax. Euh, loolu gouvernement euh, tant que àgguñu taay boobu cest boo amee quarante ministres nga nekk premier ministre pour jiite quarante personnes yombul vingt cinq aussi yombul mais boo amoon taay bu moyen quinze wala vingt ñi nga xam ne ñii jox nga leen euh, ministère yu doy am nañu compétence am nañu les moyens quinze personnes wala vingt neex na ñu jiite sur sur un an deux ans di nga am résultat Euh, defe naa daal loolu moo moo des mais am nañu par bu baax léegi nag euh, aussi dañ may euh, may quand deux ans ñu xool gouvernement bi nar a jur mm-hmm. nga foog ni ñoom dañu mën a relever défi yi dinaa en tout cas bu dee expérience ñu administration publique bi muy administration privée bi organisation euh, africaine yi muy Nations Unies am nañu ñi nga xam ne am nañu xam-xam ci wàllum doxalin administration bon loolu suñu boole seen doole bokk benn gis-gis am même démarche euh, defe na am nañu am nañu chance réussir li nga xam ne daal euh, président bi lan mooy objectif am xam objectif bi suñu liggéey am gisuma lu leen mën a tere euh, am euh, am euh, seen résultat wante nag du yomb. Hmm. ñoom tamit nañu waxante nañu wax dëgg Sénégalais yi. solution yi du am fii ak benn weer wala ñaari weer wala hmm. aussi. Hmm. il faut que ñu waxante ak askan bi askan bi xam ne lu leen lu ñu yore gis na am nañu kàttan wante dañu soxla quand même au moins un an deux ans pour am résultat bi nga xam ne dina méngoo. ak li nga xam ne Sénégal yi loolu loolu xaar ci ñoom. Mhm. Euh, mu mel ni nag euh, Elimaanu jëwriñ ñi di euh, Ousmane Sonko moom décrété na lii di fin wu cumul yi nga xam te ne faral nañu ko gis. Mhm. waaw loolu lu baax la ndaxte boo xoolee Sénégal ku nekk ministre nekk maire pour nga liggéey ci ministère nga liggéey ci maire yombul loolu moo tax ñuy wax politique politicienne wala clientélisme. Euh, ministre bi day dem seeti maire maire dafa seeti électeur euh, bon euh, mais bu ñu leen waxee ne que yéen léegi mënatu leen nekk maire soo nekkee ministre mais di nga am jot pour liggéey sa ministère pour contrôler li ngay def defe naa loolu lu baax la léegi nag dafa laaj déggoo acteur politique bi ñoo war a déggoo ku nekk ministre da nga war a am priorité mooy sa ministère boo jógee mairie euh, mairie bi jox ko keneen nekk maire démocratie aussi loolu lay euh, noonu war a doxee. Hmm. alors mu mel ni nag entrée en force la ñu woote muy membre wu Pastef yi euh, ku ci mel ni Jean-Baptiste Tine moom la ñu dénk mu nekk jëriñ gi ñu dénk wàllum biir réew mi ak sécurité publique Ousmane Diagne di jëriñ gi ñu dénk wàllum yoon mu mel ni nomination ak réhabilitation la ñi nga xamante ne ñoom le régime Macky Sall dakkoon ñoom daal ñoo dellusi mais mën nañ ko gisee noonu wante man euh, ñooñu dañu am expérience pour nekk euh, ci ministère de la justice wala ministère des forces armées nga liggéey ci quinze ans vingt ans kooku bu ñu la soxla ci ministère sa expérience moo tax ñu woola kir euh, ñu ñëpp xam nañu que ñooñu ay homme de vérité lañ am nañu éthique am nañu expérience dinañu liggéey dimbali justice bi muy ministère de l'intérieur ministère des forces armées dañu am expérience léegi nag réhabilitation xëy na am na parce que quand même c'est des c'est des patriotes c'est c'est c'est des cadres am nañu vécu nitu dëgg lañu waaye suñu bu amee ki nga xam ne kooku am na melokaan boobu ba dugal ko ci gouvernement euh, réhabilitation am na jaaduwul woon sax leen ñuy leen di euh, léegi nag yaakaaruma ñooñu Euh, en tout cas expérience bu ñu am du ñu ñëw pour fayantu weesu nañu euh, ay euh, petit gouvernement pour fayantu mais lu leen tax a jóg yaakaar naa du fayantu wala pour réhabiliter déedéet askan bi moo leen tax a jóg mësuñu jógee ci ci loolu defe naa loolu lu baax la que Sénégal quand même réhabiliter les hommes de valeur loolu soxla nañ ko Mhm. alors mu mel ni nag euh, jamono ji ñeent femmes euh, lañu gis ay jigéen yoo xamante ni daanaka ñoo bokk euh, ci gouvernement bi nan nga ko jàngatee rawatina ki nga xamante ni mooy madame Khady Diène Gaye muy ministre gi ñu dénk wàllum jeunesse sport ba ci aada ak cosaan nga foog ni ñetti secteur yooyu ñu boole du indi jafe-jafe. waaw ci benn côté bi dañu am quand même euh, encourager responsabilité jigéen ñi ñoom jigéen lañu am nañu xam-xam am nañu leadership donc am nañu quand même une opportunité pour ñu wane seen xam-xam ak seen mëneen euh, loolu lu baax la euh, bon jafe-jafe bi nag du du du defe naa dafa diis que gouvernement bi waroon na quand même gën a xalaat par exemple euh, euh, ministère affaires étrangères ak intégration est-ce que intégration gënul woon mu dem ci industriel industrie waaw ah, bo culture est-ce que gënul woon mu dem ci communication waaw loolu nag dafa laaj euh, réflexion bon gouvernement jël na décision mais yaakaar naa daal que ji euh, ñi nga xam ne tànn nañu leen ñu nekk jigéen am leadership ñoom ñoo war a prouver il faut ñu am résultat léegi nag euh, yeneen mouvement citoyen de femmes c'est vrai que nañu continuer def pression parce que defe naa vingt cinq euh, quatre euh, ñeenti jigéen da tuuti na tuuti na wante nag qualité bi am qualité bi bu defee résultat yaakaar naa jigéen ñi di gën am doole ci euh, gouvernement bi di ñëw. Mhm. alors Mamadou euh, Sy Albert jërëjëf may fàttali rek ne analyst politique nga sa xel màcc ci lépp lu jëm ci euh, wàllum politique ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf waaw.